loolu nga tuddee effritement xam naa sax peut-être euh, li nga tudd Aly Ngouille Ndiaye dafa am ñenn ñoo xam ne dañ doon attaqué ñeneen mais dañoo wëlbatiku di attaqué ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël seen yoonu bopp mën naa ko tuddee noonu mën naa ci lim Aly Ngouille Ndiaye Ahmed Suzanne Camara dafa génnoon ne Ousmane Sonko war nañ ko rey Ousmane Sonko war nañ ko nangam dal ci ñoo xamante ne jàppoon nañ leen ne ay opposants lañu mais démb dafa dal ci kaw Aly Ngouille Ndiaye boobu ne nañu ko laaj digganteem ak soxna Aïda lan la woon ndax moom Aly Ngouille bi mu nekkee ministre de l'intérieur moo doon dooleel soxna Aida bu ko euh, xalif général bi tere Aly Ngouille moo koy jox ay doole muy def ay cantam ay yooyu ba ne am na loo xamante ne doxoon na diggante Aly Ngouille ak kooku la di soxna ayda ne Aly Ngouille da doon ba ba ba yaatal ci yaatal ban jàngat nga am ci loolu. non xam nga xam nga man wax dëgg yàlla nag loolu moom la ngeen ma baal mais man mënuma commenter waxu jàmbur. boo xam ne bii. dafa dugg ci vie privée. su doonte ne c'est général. Mhm. en politique mais généralité bi mooy Aly Ngouille moo doon dooleel ba mu nekkee ministre de l'intérieur moo tax ñu jëlee ko fa. waaw mais loolu bu fekkente ne kam doon dooleel. Mhm. nañ jàpp ne daf koy dooleel rek kan moo ñu wax ne dooleel gi dafa firi ñoo seqoon dara. Mhm. xam nga loolu mooy nettali géntu jàmbur. yow mënoon naa nekk tey ministre de l'intérieur. nga am sœur. muy sama xarit ma koy dooleel te xëy na sequñu dara. wala boole leen. man mënu ma mënu ma nettali lu mel noonu. par exemple Aly Ngouille Ndiaye bu fekkente ne benn nit dafa génn. daat ne waaw dafa doon jàppale soxna Ayda nangam ak man jàpp naa ne soxna Ayda. am na sañ-sañu bu xaw ma nag astafurla wóoru ma. am na sañ-sañ wala amul sañ-sañ. bu amee benn xaritam ñuy séqalante àddina ak di jàppalante. firiwul ne. dañoo séq leneen. léegi nag ka wax loolu. kam wax wax ja bu ko porté plainte na indi preuve yi. parce que man jàpp ma ne loolu am na. Mhm. parce man du dégg rek till ne damb na. Mhm. te ab jullit dañ ko wax ne ko. Mhm. suñ la waxee ne la diw def na lu ñaaw. yow de prime abord weddi ko. gis ko nag waxtaan ak moom ba xam waaye bul bul def lu ñëw rek. nga ne gëm naa ko. mais léegi. jàppale. Mhm. jàppale nit kuy def cantam. nga mhm. nekk ministre a l'intérieur. Mhm. lu mu jotee ak ay vie charnelle ay vie ay vie privée. même si cela existait. loolu moom lu ci yoonam. ak teggi waxu xalif bi. waaw ak non teggi wax xalifa moom ab xalifa kenn du teggi waxam. mais est teggi na wax waxam xalifa bu fekkee ne dafa teggi waxu xalifa bi. ah bu keroogee nag. ñi nga xam ne ñoo yore. xalifa ba ay mhm. kàddoom wala ñoo yore ay mbiram mhm. nañu dem waxtaan ak moom bu fekkeen bu fekkente ne am na nag laa wax mhm. bu keroogee ñam ñam ko def kuréel googu nan dem régler problème boobu waaye man li ma mënul comprendre mooy dugg ci wii privé nit di ko xas naan moo fi defoon nangam nangam te yow miy wax loolu boo deful ndànk yaa ngi toog ci loo xam ne boo sañoon kenn du la ko waxal waaye est-ce bi tourné ndax kooku tamit yàgg na fi wax bu ñëwee ba li leen ko wax léegi ñoom euh, dafa mel ni xaw ma c'est le revers la médaille nu ñu koy waxee. non mais xam nga xam nga kii xam nga ki def politique. Mm-hmm. te réew mi intéressé wu ko poosam rek a ko intéressé. Mm-hmm. lu mu la wax tey ba léegi man na ko weddi. Mm-hmm. waaw waa jooju ngay wax. bu fekkonte ne ku dëggu la. du def ku génn rek mu xas la. kon day xool lii du doxal réew mi. waaye xaste lu muy xaste dana développé am réew. wax naan vie privée jàmbur dana dana am réew. diw gis naa ko mu ànd ak soxna sàngam nangam ak nangam dana développé am réew. waaw lu tax muy def nii ndax moo fi nekkoon di def lii mais loolu. Mhm. Aliou Ngouille mhm. li ma xam ci moom laay wax de. Mhm. wa ma shahidna illa bi ki booy wax ci moom da ngay li nga xam ci moom. la yàlla muur ci moom nga nëbbal ko ko. parce que yow am la Aliou Ngouille Ndiaye nit ku baax la. il est de Jolof mhm. ci famille bu baax la bokk mhm. jàmbaar la mhm. liggéeykat la intellectuel la nekk na fi yooni yooni yoon ay ministre nekkoon na fi banque de l'habitat ku bari xam-xam la. Mhm. dem na ba mu yàgg mu toog am sañ-sañu ne ab citoyen la dafa war a laaj réew mi. Mhm. su waree laaj réew mi nañ ko bàyyi comme ni président Macky Sall defoon dem mhm. nangam ak nangam. et te li ngay wax tey bu la waa ji woon plainte doo indi benn preuve. loolu du demale am réew. léegi nag ñi nekk ci làngu politique bi. nga xam ne ñoom nekk wuñ fi lu dul xaste. ku fi def lii ñu ne yaa fi defoon nangam. ñooñu moom bu Sénégal di avancé duñ ko ndax nit bu demee ba am sañ-sañu wax yi ci micro tamit xam nga nag foofu nag am na erreur gis nga nit. Mhm. dina wax dara ñu ne ah kii boo xëy dara du ko ci fekk déedéet dara mën na ko cee fekk. Mhm. ba mu ko ciy fekk da ngeen ko dul yëg. <laughs> waaw fekk da ngeen ko dul yëg. parce que nit dana tëdd ci lalam. Mhm. di wanaasu benn feebar. loolu borom xam-xam yu bari bind nañ ci. fekk na feebar boobu. dafa tegoon ci deroon nit dara. yàlla bàyyi ba jamono ñëw mu du mu rof mu rof ko boo xam ne bii. lor ya mu wanaas woon moo ko rendre. dëgg la. parce que mag ñi ci réew mi. Mhm. dañoo tooke seen der yi dañ koo tooke. Mhm. loolu waxu wolof la. Mhm. léegi nag ki tooke doram. xamoo fu mu jaar. xamoo ku ko yar. xamoo ku ko nàmpal. xamoo gan gàllaaj la sangoo. xamoo ci benn fan la sukk ay ni ay wóomam ñaan fa yàlla. xamoo digganteem ak boromam àgg na fu sori wala déet. Mm-hmm. nga jékki-jékki sosal ko lu ne weng. man mm-hmm. ngaa am ba mën na yàlla man naa dogal bala ngaa génn àddina. Mm-hmm. yàlla dana la roof feebar boo xam ne bii kenn du ko mën a faj. léegi nag loolu. bu ko defee ñu a ah diw xam nañ dara doo ko ci fekk déedéet dara doo ko ci fekk ci politique. visiblement nii. wala ci waaye mën naa dem bu guddee fan dara fekk ko ca. te nag dana la jox benn affaire gis nga képp ku bàyyiwul dooru geru geru gor yi di leen xas di leen sosal def ko métier pour sa poche. bala ngaa génn àddina yàlla toroxal la. Mm-hmm. maa la ko wax parce que nag yi am na mais Dieu est juste. Mm-hmm. waaw Serigne Babacar Sy dafa doon wax ne radiyallahu taala anhu wala dafa doon wax ne bu kenn na reyuma doomu aadama te demoo ba ci demoo ba ci yomal xiyaam ci kanamu yàlla. dëgg ñu ne ko si lu tax. Mm-hmm. mu ne gor su dekk ci koñ bi nekk ci dëkk bi nga teg ci baatam loo xam ne lii mbedd mu mu jaar ñu ko koy xoolee soo ko yëgee boo ko yëgul rey nga nit.